voilà waaw daanaka ñun ci jàpp gi ñu ko jàppoon noonu la ñu xamanteeg moom ca la ñu ñëwee woon sax ba seen kër parcelle 26 seet woon njaboot yi génne moo yëkkati téléphone am woo ma ne ma soxna gis naa taxawaay bi nga amoon kon kooku day wane ni ku kooku day wane ni ku am kóllëre la woon te yemu ca ba ci vidéo bi mu mujj publier ci page wallaahi maa ko ne pour na ma defaral vidéo boobu dañoo war a doon war a séddale li ñu war a jox doomu détenu man maa ko ne na ma ko defaral mu publier ko ci page kon ba ñu gëjee déggante yàggul sama nit la woon suñu nit la woon ñun ñëpp ndax ku ci nekk rek mën nga koo jaale sa bopp waaye di ko ñaanal rek nag yàlla na ko borom bi yërëm te xare ko àjjana yàlla na fekk ay sangam ndax loolu ñun am nañ ci yaakaar am nañ ci yaqiin ndax kat liggéey na lu tax mu war a mën a am loolu liggéeyal na ko réewam liggéeyal na ko jaan ndax man loolu laa xam ci moom muy gore liggéey bi gëm naa ne ci ngóor la demee ndax su ko neexoon doxalee neneen te su boobaa dara du ko coow waaye góore moo tax bu demee nii kon yàlla na ko borom bi yërëm te ko àjjana ñu ngi tam ñun ñëpp yàlla nañu borom bi may xolu ñun xolu ak wal ak xolu nag ndax métti na lool ñu leen koy jaale bu baax a baax jërëjëf

loolu kay xam naa man li ma leen yoon sant kilifa gi moom sant na leen ak bokk yëpp gërëm nañ fi yàlla leen yàlla teg seen jéego tànk yi ak dell yëpp yàlla matam ngeen bëlëre matam ngeen xam nga ngor bi liñ la defal waaye bay ngeen ko dugal dégg yàlla mën a faj yàlla ko faj yàlla dina yaa xam ne ko bëgg yàlla yàlla defal nan ko bëggee ak fan ko bëggee moom nag xàndoor bi dem ci waar la loolu bañ def dañuy dégg yàlla ko am loolu xew te xew bi moom yéene ci ñun doon xeexal réew mi pour bu baax bopp ñu jàmbaar daa tolloon dee moom ma suñu borom la ci biir dana ko def waaye amoon na lu jàpp ba liggéeyoon na woon na loo xam ne la ci dégg nga waaye nag kenn ku ne fa suñ borom ne ko lay wàcc liggéey lu sa def jege see rek demul ci foofu loolu rek a ci am kon ñu ngi leen seet leen gërëm leen ñaanal leen yàgg leen yàgg ci wàcc jàmm te ñun kenn ku ne fu mu liggéey yàlla ko yàlla defal ndam te mu sori ko def dañuy bëri si jërëjëf kontaan nañu bu baax jërëjëf

ak ni ngeen ko gisee Serigne Assane Mbacké moom moo toog noonu Jolande Kabara moom moo wax ba dem ba Serigne Assane Mbacké ñu ngi koy gis moom tamit noonu euh, après dinañ ko jëm su ko joxe li nga xam ne moom mooy ay kàddu ay kàddu seede ci ki nga xam ne moom mooy Papito Kara ki nga xam ne moom moo fi bàyyi ko yaar nañ interview donc reste connecté euh, continuer euh, abonné euh, partager am ki nga xam ne moom mooy seen Assane su ko defee ñu jéem na jël déclaration sëñ Assane Mbacké su ko defee wax li nga xam ne moom lay wax ci ay seede ci ki nga xam ne moom mooy Papito Kara dañuy génn ba ñëw comme ni ma ko waxee léegi sëñ Assane Mbacke moom la am nii euh, muy koo xam ne ku sonn nga vraiment ci euh, activité yi nga xam ne patriote ñu ngi koy amal jamono bu nekk moom la am nii parce que da déglu rek mu def ay témoignages. ak ay euh, kàddu yoo xam dina ko sa dina ki nga xam ne moom mooy euh, Pape Diouf Kara asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen di leen nuyu yéen journaliste yi suñu tànk fii ko waral leen rek la ndax euh, dafa koo xamante ne dañoo bokkoon gëm-gëm mbokk ay conditions yu nekk patriote suñu borom moom ko kon tey jaar na ñu ñëw fii jébbal suñu njaal xëy wi jébbal tam suñu njaal képp képp patriote ndax suñu teewaay mel na ne Ousmane Sonko lañ fi teewal mel na ne képp képp patriote bu góor a ñëw te ñëw tamit yow lañ fi teewal kon dañuy ñaan rek mooy patriote Kara suñu borom yërëm ko xaaru ko ay fa tey xel war naa dal ci bu baax a baax ndax. mën nañoo wax ne maanaam jihaad la ndax dafa liggéeyal réewam xeexal réewam ba suñu borom tey daf moom ndax xëy naa mi ngi doon daw ay mettital wala ay xoktal wala leneen leneen ba suñu borom moom ko kon kooku mën nañu wax ne maanaam jihaad la kon day ñaan suñu borom yërëm ko xaaru ko àjjana ay fa suuf si kawam te suñu xel war naa dal ci moom ndax maanaam àjjana la la yóbbu ndax wax dëgg yàlla lu mu doon def rek mooy dem pour sauver boppam kon nag bu suñu borom moomee day ñaan suñu borom yëpp xaar ko jëm di ko jaare fàttali bi di ko jaare jullit yëpp ñëpp ku naan asadu an laa ilaaha illallaah di ko jaare après Kara moom lu baax lañ xam ci moom bëgg réew lañ xam ci moom fàtte ci suñu tamit loolu woote kon ñi ngi sax ñëpp di gërëm ñëpp xëy na comme ñu ñëw ci dëkk mënuñoo développé ci yenn kàddu yi waaye daal ñu ngi def suñu daal di ko teg ci loxol askan loxo biir yëpp jox ko famille bi ak ñëpp rek sax nañ bu baax teeru nañ bu baax di ñaan suñu borom leen te jéggal leen fi nekk tamit suñu borom bàyyi leen fi ba yéen a di am ngir changement suñu borom defal leen ko ndax xam naa ne fee mu nekk deux mille vingt quatre bu changement amee dina tàll te it bu tolloo ñu ci woo partenaire yëpp képp ku bëgg réew mi rek ñu ngi ngir changement bi mu doon xeex maa ngi ci woo bépp patriote ak képp bëgg réew mi rek a tàllee fee dañu am état la parce que ba ndaw ñàkk espoir ndaw ñu amatuñ yaakaar ndax ku nekk xam na Sénégal ni ko Ousmane Sonko doon wax moom nee na amul nit ki di jël xaalisam di fay di jaar gaan wala di fay di jaar ci yoon suuf boo xam ne dafa illégal ndax moom gëm na ne réew mi war nañ ko mën a defar war nañ ko mën a jooyante ba nga xamante ne képp kuy ndaw rek di nga mën a gis sa bopp fi nga nekk. te loolu mën mënta am li fekk ñi fi nekk di ay saay-saay juguñu fi parce que ku nekk xam ne ñi fi nekk réew mi ñoru leen seen bopp moo leen ñor kon tey war nañoo mën a xeex ba nga xamante ne ndaw ñu yaakaar di ñu ñàkk yaakaar la dina ñëwaat te loolu leen mënu rek lu dul changement parce que ku nekk xam na ne Sénégal neexul réew mi lan Macky Sall jóge woon ci réew mi defu ko lam ne woon dina ko def ay employé defu ko moo tax ndaw ñi kenn kenn xamul xëy moo tax ndaw ñàkk espoir di dem ci gaal yi waaye loolu ndax état bu cuune état bu et compétent état boo xamante ne la mu diwoon aw askanam daf leen trahir daf leen a wor moom lañ jàkkaarloo loolu moo tax nañu am espoir waaye ñu ñaan ndaw ñu ba deux mille vingt quatre ñu jël réew mi jox Ousmane yaakaar ci bit yaakaar réew mi nga mën gis fii ba liggéeyal sam réew jëriñ sam réew yaakaar naa daal loolu rek moom mooy solution bi waaye ñi fi nekk moom wax dëgg yàlla yàq lañu ci côté bépp nag ndax bu ñu demee ba mën a jël yoo xamante ne maanaam damay wax ne Amadou Ba maanaam moo gën a nekk sàcc Sénégal parce que fonctionnaire boo xamante ne da ngaa nekk multimilliardaire loolu te Amadou Ba bu ñu xool moo ëpp Macky Sall ñetti yoon xaalis kon fan la ko jëlee ab sàcc la impôt la nekkoon kon fan la jëlee ay ay milliards kon nag war ñoo jël ab ba koo dénkaat suñu réew loolu xel sax ñu war a koo xalaat kon képp koo xamante li ngay xeex te Macky Sall na nga xeex ngir Amadou Ba mii ñu jëlee ko ci réew mi ak ñu ko foog a jëlee te it bañ ko fee teg te yaakaar naa ne tamit duñ ko fi teg ndax am sàcc moom duñ ko fal te booy fal sàcc bu gën a mag Sénégal Amadou Ba kon loolu maa ngi wax Sénégal yëpp nañ ci veillé nañ ci jóg ñu taxaw jàkkaarloo ak état bi fi nekk état boo xam ne état wu dictateur la état boo xam ne état de veyu la état la état boo xam ne état sàcc la kon li ñu jóg ñu xeex ak moom ba jëlee leen loolu rek moom mooy solution waaw mooy mooy li ma wax rek ñoom ñëpp dañu toog dañu toog xeex bu ñuy xeex ñu xeex ko suñu réew ba keroog ñuy am li ñu bëgg te man gëm naa ne bu ñu ko xeexee rek am ko ndax fii ñu nekk nii ñoo war a a xeexal suñu bopp xeexal réew mi am changement te changement boobu tamit ñu ci woo képp ku bëgg sam réew nekk bëgg ci sam réew ñu ngi la ci woo jërëjëf